xaaral xam nga ku nekk ci accident su nekkoon su nekkoon Tamba wala ñu nekk Kaffrine ban seen mbokk ma la fay fekk xam nga nga jël avion leen Dakar yu ñu jege sa ay mbokk amul sax merci beaucoup xam nga da nga non xam nga xam nga xam nga xam nga kii euh, Farba man waxuma coté évacuation bu normal xam nga boo euh, jógee si accident ci saa si dangay xaw am traumatisme bu doon lu gën médecin yi duñ la diggal que nga transporter malade bi dañ lay naan kii da nga koy stabiliser mais lan moo tax ñu évacuer leen ici à Dakar parce que médecins yi Macky Sall leen fa jiitu. Mm-hmm. hôpital boo ko tabaxee ba pare. ñu déggee honorable député Abdou Mbow qui est quand euh, nee na seen famille ci boppam ñoom ñoo réclamer à ce que euh, euh, maladie ñëw fii ci Dakar pour être. famille famille du réclamer. médecin bi mooy xool daal une heure de temps. famille du mais xam nga gën sànni leen fële du am kenn ku fële. nga xam nga lan moo tax bu possible loolu. parce que hôpital bi d' accord baax na rafet na macha allah suñu alal la Macky Sall bu mu ciy namoo. neuf ans nga dafa benn hôpital xam nga ñaari hôpital doy na gàcce hôpital bi laata Macky Sall di ñëw bu ñu jëloon personnel bu fay dem signal leen décret ni leen yéen a fay dem ñu jiit fa Macky Sall di faj mu opérationnel kon du ñu jël kenn di ko évacuer mais hôpital bi di nga déggaat ay reportage fii léeg un mois wala deux mois ñu ne la nekkul non c'est pas du question de yàq far du question de yàq xam nga président Macky Sall waaw d'accord xam nga li ñuy def waaw d'accord ma daaneel foofu nga d'accord doo bàyyi dara génération yi fi nekk d'accord léegi léegi léegi léegi loolu si loolu laay daanelee en fait xam nga tey sëñ Ba nga toog di wax ci hôpital yu Macky Sall réalisé def projet bi def conception bi financé ko ba inauguré ko est-ce que am na sens ci moom mi nga xamante ni xam na ni lii moom moo ko defar mais au même moment am na benn quartier bu ne ci côté bu amul ndox. moom mun na ko bañ a xam ñun dañuy fàttali Macky Sall que ni au-delà de ses am na ay réalisations yu mu jot a def. moom xam na ko. mais am na lii baax na nañ parce que moom xam na lii baax na. waaye am na leneen lu ñu bëgg na ko président bi def. noonu la ñuy waxee waaw waaw d' accord. mais am na ñoo xam ne noonu la ñu siiw am hôpital tey. d' accord Farba ba man bu ma bu ma wax dinaa jàng ji feneen wax mais pas ci alo alors euh, li may wax mooy. moom day xuloo moom day naggasante Macky Macky. xaw ma lu ma def xaaral ma la reyee sa taaw comme on dit am wolof. Euh, jamais y' a y' a aucune animosité dañuy waxtaan nii rek. non lay wax rek parce que damaa gis que yow. alors oui d' rek. Euh, Euh, par contre je te le permets pas ngar-ngari bul ma ko ah, waxaat non bul ah. ngar-ngari j'ai beaucoup de respect non non non j'ai beaucoup de respect pour toi ah. bul ma waxaat ngar-ngari ça je te le non non non non euh, non euh, non wax bu ñaaw ma toog déglu la ma di la wax nga am looy wax alors li man maa wax ngar-ngari parce que yaa fi wax loo xam ne am na ñoo xam ne dañuy tëb la te te ma la waxuma la dama laa toog. mais far ma ne fii kenn du dóor wax ma loo xam ne fii. waaw mais xam nga yow ministre nga yow euh, ministre moo ma euh, tax ma fair play. mooy li ma li ma doon wax léegi rek si sama li ma doon wax léegi sama sama biir kàddu en fait. que ni lii moo tax lii moo waral en fait que Abdoulaye Wade échoué parce que euh, genre personne yi ñu jël leen def leen ministre euh, non non s'il te plaît s'il te plaît ba muy bàyyi ma yeggal li may wax baay ma yeggal li may wax waaw waaw d'accord mais nee na bàyyi ma yeggal li may wax du ay détail du ay détail ay détail parce que man ngaar ngaar yi mën nañuy waxal donc c'est pas waaw d'accord mais il l'a répété genre nit ñi bu ñu nekkee ay ministre de la République régime boobu mënuñu xaar si ñoom ay résultats yu ko ba daw ñëw sama biir salon toog. alors dañuy marqué ma ne yow ñëw nga ba sama salon nga daw ñëw ba sa salon ma gàddu sa livre yow sa yaa ma ni ma indil la benn man yaa xam nga ñuy soog jëm ak télévision yi ak li ñuy def dañuy benn Farba Senghor dañuy benn yaar ñëw ba sama salon daw woo ma ñëw ba ñëw toog mag du kàcce ne ma mosuma gis lii billaahi wallaahi taala nga ne mosuma gis lan nga ñëw toog non pharmacien yow